Nous avons pour euh, lancer officiellement le projet Bouni Toudé donc appui à la gouvernance de l'insertion socio-professionnelle des personnes vulnérables Et ONG le partenariat avec initiative avec euh, le centre agence régionale de développement avec euh, le financement ou agence française de développement en montant de 750 000 euros donc euh, mu nek projet bu ama am solo ci kaw ndax euh, état du Sénégal gis nañ ne def na effort yu bari bari ci walum euh, xeyu ndaw ñi def ko également si walum entrepreneuriat accompagnement des jeunes mais bi pa li ci spécificité bi té nag lo xamné dañ koy rafetlu moy le fait que dafa choisir maanaam dañoo tànn gunge ñi nga xamante ne nii dañoo ci situation vulnérabilité manam ay xalé yo xamantene ni dañoo doon jang ba ci yag seen jang yàqu ak jafe-jafe ak ñi nga xamantene dañu nekkon ci kasso génn amuñu luñu def ak euh, jigéen ñi nga xamné également ay ni ñuy wax ay mère célibataire yor ay doom ñu abandonné amuñu activité amuñu lu ñu def ñu fas leen ci euh, formation déjà après faciliter leen li nga xamantene ni moy am luñu def insertion bu lolu wesso également projet bi nek projet bu am am solo parce que dafa dafa bëgg euh, intervention yi nga xamantene ni manam initiative yi nga xamantene ne ñu ngi koy doxal ci walum xeyu ndaw ñu fexé ba ñu lekkelo ñom ñëpp jëm ben yoon bu ko défé dañuy am li nga xamantene ni moy ay résultats yu gëna efficient donc looloo waral tay ñu wax un projet d'appui à la gouvernance donc dina jappalé également les acteurs locaux donc je pense aux collectivités territoriales aux ensembles à l'ensemble également structure yi nga xamantene ñom ñoy liggéey ci walum xeyu ndaw

ak société civile ñi nga xamante ni dañuy def ay yëngu-yëngu pour jàppale ndaw ñi ñuy xool naka la ñuy mën a bokke seen doole lëkkaloo àndandoo dóorandoo pour que gën a am résultat bi nga xamante ni moom lañ ci séntu loolu daal moom mooy am solo ndaje bi te nag euh, dañ ko lëkkale ak li nga xamante ni moom la euh, kilifa yi gouverneur ak préfet yi ñi jumtukaay yi nga xamante ni taxawal nañ leen ñu tudd leen pôle thématique pour mën a saytu lépp luy politique bu état bi di euh, taxawal ci ci gox yi ñu mën koo saytu jàppale ko gunge ko ba nga xamante ni li nga mën lañ ci séntu comme njariñ ñu mën koo am mu nekk satisfaction jeunes yi satisfaction aussi collectivités territoriales yi